bismillahi wa ala millati rasuli wa manhajil xadim bu ngeen gisee nu nekk ci biir waxtu wuy jot ma ne nañu teg nodd gi ku ne xam na ne nodd bu daanoo jullee fa du dëkk waaye barab bi ak ni mu demee ndeem wax dafa baax jëf baax yéene itam dafa baax loolu moo tax bu ñuy dimbalee dinaa dugg fii te kenn mënut a jóg julli fii itam da ngay dawal yéene tedd ki mooy jàngale asalaamatu wal afiyatu tëtta wala daani fi dunia wal axira paix ak sérénité sans jeu mais à partir de bonnes intentions bonne parole et bonne action niyatul xayr wa xawlul xayr wa fi'lul xayr loolu moo dëggal jubal leeral bu xisbul xaq membre fondateur yaa nii Abou Abdoulaye Mohamed et cetera fi mu toll boo tuddee tur rek ndax tur yëpp bokku te ñëpp bokk waaye boo tuddee kenn muy Adama di góor nga tudd kenn muy Hawa di jigéen soxnaa ngi nii maam Fatou baa nii ci wetam keneen ak keneen sama doom yi sama cuppiit yi waaw da dem ba nga xam ne booy wax booy wax comme am naa su muxtalifun da ngay fexe ba ñëpp bég bala may jàll dama leen di wax ci al imam waa moom moo téléphoné soxna dégg annonce bi moo njëkk a joxe kàddoom ak ak secrétaire am bëri ba foofu di yónnee ay cadeau rek te yónnee gu ma dara bu ma ci secteur nga xam ñoom man waaye dama bëgg ngeen traduire jotaay ak ni mu demee ak jox bi nga ko jox parole ak li mu résumé intellectuellement loolu abu yéen intellectuels yi na ngeen ci def ay xalaat c'est très important parce qu'il représente tous les grands hommes du pays moom ñoom la fi ñëpp la fi présenté je xam naa ne dafa xaw a am contretemps parce que Jérôme waroon na fi ñëw parce que ma fa nekkal église di sama xarit Jérôme Diouf da damaa bëgg ñëpp nekk fi damaa bëgg bu fi murid nekkee itam tijaan nekk fi xaadir nekk fi laaye nekk fi ñese nekk fi ñëpp nekk fi et cetera parce que c'est la coalition du siècle li sama doom yi sama rakk yi wax dëgg ñi yore sant bi ak ñi ko yoru seeni njàmbaar dafa fees seeni njàmbaar dafa fees damaa naroon a jox kenn ci sama doom yi di doom yi sëñ Cheikh Abdou Faye pour mu wax au nom de l'ensemble des petits de Mame Thierno Birahim ma xam ne bu leen sëriñ Ousmane waxalee ñoom ñëpp mel na ni wax ne xale yi def effort yi itam ci association yi ak mouvement yeeg parti yi nga xam ne participé nañ te duñ leen mën a guddal lim dafa ay kilifa yoo xam ne am nañ intention participer mais comme dañu ko improviser pare guñu pour ñëw loola tax bi ñu mën leen mën a lim gis ngeen sama nijaayam ay ngoon jaar nii ci wetu imam moom it famille bi yëpp la fi représenté dafa a fanaan yi Thiès tey la waroon dem Thiès ma ne ko da ngay ba jóge fii soog a def nde boobu la bu fi bàyyi woon sëñ Modou Ngom mel na ne mi ngi fi donc soxna jàmbaar la bay ji nga jéem a wax laa ma ñu jubal ci arab waaye laqad mutaalliquna kunu muminin wa muslimina taatan wa muxsinin loolu rek soxla ma ma waxal ko arab ma solidarité waxal ko arab bu ko defee ndax pullo bi ndax pullo bi jàng ci bu demee pullo bi xol rek la yéen ñii war leen a fekk ginnaaw yéen ñee may seen maam Mor sëriñ Am sëriñ Bas sëriñ yéen war leen a fekk jiite maanaam yéen a ngi foofu waaye yéen a ngi fii ndax maa yéen yéen a ma te li ngeen daj waaw ngeen waa Touba Tické ko maanaam Moussa Ba am nga ne ca gannaaw li ngeen léegi li ngeen di daj lépp maa ngi koy xam am nag moom ku ma xam ne nga ko rek ma yónnee la can ci moom wax naa ko maam moo ñu wax ko sëñ Moussa wax ko sëñ Ndiéli donc ku ma tudd rek ci yéen tudd naa mi nga xam ne seetlu ba nekk ci moom man naa koy génn fekke maa koy génne téye ko parce que dama ko soxla dama koy dafa bokk ci piliers yi nga xamante bi moom laay ñooy samay cëslaay pour def sama liggéey. la coalition la coalition du siècle xaw ma déglu ngeen audio bi ma joxoon joxe war ñu koy teg. ko tax a du pour ay parti politique rek daayira yeeg ñëpp ci bokk réew mi ak bitim réew. wax na Cheikh Gana Misra ne ko. li féete ci daayira yi moom la ñu ko féetete hmm. ak jàngkati xasay waaw maanaam dañuy bëgg secteur bu nekk ñu am fa kuy coordonné li ko tax a jóg mooy jël majorité bi à l'Assemblée nationale su fekkee bëgg nañu ay réforme am laa wax kat fekkee bëgg nañ ay soppi am benn article yi nekk ci constitution bi yi nga xam ne day gàllankoor ku mel ni man ak mel ni yow ak ku mel ni yow ak ku mel ni yow ak mel ni yow ba ñuy juróom yu bokkul dafa am article yoo xam ne daf ñuy gàllankoor article yooyu ñu jël ko teg fee wane nit nit la républicain républicain la africain africain la sénégalais sénégalais la la te guide religieux nit la du mos du jéem bu ko defee déglu xaw ma ngeen ko ndéet waaye dama noonu lañ ko teg ci 18 minutes la. maa ngi wax téléphone ma séeréer ah c' est non te ñàkk sax parce que mën naa am am sa xarit buy ñëw teg seen yërmande fu man di nekk bu jógewul ci ko tedd yërmande ku tedd ki mooy gën a yaatu mooy gën a durable tax ñu bëgg yërmande ku tedd ki bi mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu ni mu waxee ne barakatul maar yi xala yantasharat wa hasamat kulliyati wa basharat mu tasaaroo mag ndaw ku ki bëgg lu baax di ko wut di tànn jiit mbaa jiit lu mën a doon lu tedd ki yoonam moo gën a gàtt boo bëggee dem ca yàlla ñi bëgg a dem ci yàlla laa wax di waxuma man ndax man egg naa fi ma jëmoon waaw ndax ba mu ne jaxantu nafsiya fi saddi samadi ku tedd bi mu waxee ne moom jël na boppam ak ñëppam dugal ci saatu samatu xam nga maa ngi ci biir parce que ci ñëpp laa bokk. ma dama ko ñaan ne ko man it maak samay bambistik may ñu dugg ci miimu Ahmadu. booy dugg duggal ba duggul duggoo. nit lu muy nekk da koy ñeme. man maa ngi ci biir miimu Ahmadu doom. moo fay fekk bi lépp. Lamine Sarr xam nañ ci dara maa soxna dañ ko doon jëw bi muy wax ak mbaaxam noonu la ko ñoom Maamar mais doon ak Serigne Ousmane mi ak ñoom sëñ Am. mbaax rek am solo tey nag gis nga bu nit baaxee war la mbaax wax ko waaye boo gisee leneen bu ko ndax leneen loo rek da nga caa am. Serigne Touba gis sa bopp bu boo gisee lu ñaaw noppi. ndax ku tedd ki li muy jàngale mooy boo gisee lu ñaaw jàppal ni forme bala waaye fond ba baax na. day gis objet. bu ñu koy nettoyé fekk mu fënd fënd ba ca kaw la rek waaye ba nettoyé mu biree hmm? su leen kii jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasulullah waaw soxna si pël si dinañ la takkalaat càq bi yow loolu soxna laa koy sas waaw man ku def baax ma wax ku dox sama diggante ñoom xoolal soo taxaw fa xam ni ko moom mii muy soxna maam Fatou Mbacke Ba Mballa Ba daf ma jëndal ci xaalis loo xam ni valeur million xaalis bu mel nii ma def ko ca limousine ba def lu ca jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul enradia may joxe limousine ba at bi jël xaalis ba defar lu waat ko def ko nii collier kon fu ma ko teg rek mi ngi may santal ku tedd mu may santal ku tedd bi jamono fu nekk rek moom it mu cay jot ndax moo ko defal lu def waxu nag lu ay di jàmbat man lu ma waaye defal surtout lu jëm ci côté bi amul nii ma koy wax na malaayka yi dañ koy mentionné e ñu ñëw nag ci coalition du siècle bi Ablaye dem na bay avancé ci imam maa ko bloqué waaw parce que imam nag wax dëgg yàlla man maa ne coalition bi bu ñu koy wootee dans les premiers temps du am président pourquoi mooy intellectuel yi ñëw dañuy bari te sama ñee nga xam ni Samba Kara Ndiaye bu ma ko présenté waaye professeur Sène xañ na ñëpp xamuñu ko waaye daal moom laa mujj nommé coordonnateur parti de l'agriculture te à partir d'aujourd'hui parti bi day continuer liggéeyam renforcer ay capacités ci commune yëpp Euh, madame Mbacké mi di Oumy Sall ku ne xam ne liggéey ba mu def fële ca Mbaba Garaas ba fi mu toll ñoom mu ngi xam nañ ko ba fi mu toll doonul ba waaye moo topp ca maire te xàmmewu liggéeyu diwaat ak liggéeyu parti bi moom waaw di ay jàmbaar xam nga bëgg moom sax di faral ay tur waaye mënut a ma doom yi ñoom benn ñoom euh, ay ñoom euh, Latifa ñoom ñëpp samay belle fii yooyu ñëpp daal wax dëgg yàlla su ma fi nekkee lim du ma wax li ma war a wax waaye yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm góor ak jigéen.